auzu billahi min asheytaan arajim la hawla wala quwata illa billah alil azim bismillahi rahmani rahim asbuna allahu wa nima alwakilu nima almawla wa nima nasir asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen bokk yi ni seetaan ci réew mi ak ci biti réew fu fi waay mënti nekk rek ñu ngi lay nuyu nuyu bi gën a sell tey ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu may nunu yendu ci jàmm te fanaane ko di suñu kilifa yi diine yëpp nag di leen ñaanal seen ndono yi yal na leen ko yàlla sàmmal bee dara du ci yàqu di ñaanal kilifa yi aada yi di ci jiital ki yàlla teg ci boppi réew mi muy son excellence le président Macky Sall ba ci ki gën a suufee kenn ku ci nekk rek lépp lu ñu la jox pour defar réew mi yàlla na ci yàlla jàpp yow min ko joxit nga jàpp ci waggar ko ba baax Sénégal jëm ca kanam di ñaanal ñi feebar yal nañu wér ak jàmm di ñaanit mbas mi yàlla mi nga xam ni moom rek moo ko fi mën a jëlee yal na ko jëlee ci àdduna bi yépp ñi juumoon dem kaso ñu ngi leen di ñaanal bu ñu fa jógee yàlla bu ñu defati leen fay delloo waaye nag di ñaanal surtout sunu bokki sénégalais yi nga xam ni foo dem ci àdduna bi tabar fa kàlla fekk leen fa te teraanga tax leen jóg yàlla na leen yàlla sàmm te may leen xéwal yu yaatu bu ko defee ngeen ñibbisi indaale poos yu fees dell ni ko oustaz Alioune Sall di ñaane di santaat yàlla bu baax moom mi nu may ñu dellusi di wax ni comme ni ko sama xarit Aliou loo waxee rek nan ñëpp na ni ñaanal suñu réew la Sénégal waaw balaa ñuy dugg ci waxtaan wi nag ndeysaan danoo ñàkk suñu doom sunu doom boo xam ni mi ngi nii ndeysaan di ndeyjoor joor faal di doom yi mati juxaani mi nekkoon soxna sunu mag amartaal ndeysaan gis nga moo génn àdduna ñoo koy jaal bu baax mati joxaani di ko jaal askanu lattaal wépp di ko jaal euh, képp koo xamante ni xam nga ko di ñaan sunu borom tabaraka wa yàlla na ko xareel aljanna bi jaayi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mati metti na waaye nag yàlla moom euh, jëlul dara lu moomul damay wax toujours ni ku bañ a faatu bul judd ndax euh, yàlla dee la njëkk bind soog bind dund te yàlla lépp lu mu def moo gën la maam Thierno Mbacke doon wax daal ni lépp lu yàlla dogal neex na ma yàlla na nu yàlla yóbbu ci dimension boobu et nu continue nag di waxtaan rek ci sunu réew ndax xam ngeen ni fan yi am nay tension yu dox ci diggante Sénégal ak euh, Mali diggante sax ay sénégalais ak i maliens lay wax ci accident boobu amoon kawlax di accident bu metti bu ñaaw boo xamante ni dëgg-dëgg actuellement jaar ci tali bi moom euh, daanaka sax wóoratul ndax yow booy dawal yoon it am na ñu ne ci tali bi du ñu dawal yoon lu leen neex la ñuy dawale te loolu mënoo koo faj parce que bari na ay facteurs yu ko indi waaye li mu bëgg a wax rek moo di euh, sénégalais yi dama leen di ñaan ngeen ànd ak seen sago te bàyyi benn jikko mooy yéen bu ñu leen tooñee sax yéen a tooñar bi ndax yéen a jëkk yàq yàq fi jàmbur te wóor na leen ni euh, parce que ñun Sénégal xam nga par exemple bu ko am ay malien defoon ay Sénégalais ca Mali Sénégalais yi du réagir sax parce que ñun yàlla bindewuñu noonu ndax nag dëgg-dëgg fii ci Afrique li fi ab Sénégalais di daj ci àll bi ak ci yoon yi moom képp képp képp mooy citoyen africain bu koy daj ci Afrique Sénégalais daal dëgg-dëgg dafa mel ni dañ noo nawloowul wala dañ noo ñee wala da parce que man xawma ma kan moo ñu bëgg xaw ma kan moo ñu bëgg fi mu ne nii bépp sénégalais bu nekk ci pays africain yi sa souffrance dëgg mooy la nga fay gis te sa réew moom kenn du fi daj dara duñ la fay loo dara duñ la teg dara boo fi ñëwee daal daanaka moo dàq sa dëkk sax te nag nit ki le respect est réciproque te président Macky Sall mii fi nekk maa ngi fàttaliku bi mu ñëwee fii di def émission euh, defe naa le 31 décembre 2011 mooy discours boobu président Ablaye Wade waroon def te mu guddi lool président Macky Sall waxoon nga fi ni bis boo xamante ni jox nañu ma réew mi lii ñuy euh, toroxale sénégalais yi ci biti réew dinaa fexe ba mu deñ te loolu nag war nga ci jóg parce que nag ñun même réew yu ñu taqalool sax lan fay daj dëgg-dëgg mburu sax daju ko ci taal. yàq nag moom kenn waru ko def accident am na yoon a ngi fi waaye nag kuy yàqloo moom boo yàqee yëfi jàmbur du war a bett kenn ndax yéen temps yi dafa mel ni sénégalais bu meree daal lakk lay def wala mu taal wala mu toj te loolu dëgg-dëgg du yëfi nit parce que cent cinquante camions yu ay sénégalais moom la ñu yàq biir biir Mali cent cinquante fii quatre ngeen yàq ñu yàq cent cinquante kon sénégalais yooyee seen bo seen moroomi sénégalais yi njëkk a taal oto boobu boo jógee Mali ñoo leen xañ seeni wata parce que nit day dal di woote jàmm te Mali mënunoo tàggoo parce que Sénégal gii sax ñi fi dëkk ñi ci ëpp empire du Mali lañ jóge ay bokk yu yàgg lañu yu yàgg l'empire du Mali ci la Sénégal bokkoon donc jàmm moo war a am suñ diggante mais respect aussi moo war a am suñ diggante mais respect nag nit ku nekk yaay dox doxin wu ñu la respecté yéen bu ngeen seetloo sax xam ni sénégalais yi amatu leen respect amatu leen benn considération euh, à travers l'Afrique pourquoi parce que ñun xam nga man <laughs> bañu ma gan de wax dëgg yàlla je ne suis raciste bañu ma gan du ma xénophobe mais dama ne liñ may teg biti réew boo ñëwee Sénégal nañ la ko teg xanaa c'est la moindre des choses c'est la moindre de choses mais ñun bu ñu génnee nu ñuy traité comme ay mbaam di ñu teg lu metti lu ne boo duggee biir Mali ba ba nga koy génn di dugg biir Côte d'Ivoire cinq kilomètres yu ne di nga tax gis boo mooy mbécc sax dañ koy def nit ñi dóori mbécc billaahi wallaahi tàllaahi je l'ai vu parce que amoo kenn respecté wuñu te loolu nun noo ko teg suñu bopp xool leen ni xool leen étranger yi nekk ci réew mi ban respect la ñu jox waa Sénégal faale wuñu bëgguñu nu sax ak teg bët te loolu sunu doxin moo nu ko may sunu doxin la parce que nag wax dëgg yàlla bu bukki demee bay dab gaynde di ko dóor mbéj mais gaynde moo moo moo mel nu mu war mel mais ñun vraiment tracasserie yi nii am en Afrique mais mais kenn amu ko fi kenn kenn du benn citoyen africain bu buy daj li Sénégalais di daj Afrique ñoom daal dañoo defee noonu duñu ay nit parce que suñu état yi luñ nu mën a tegi ils réagissent pas protéger wu leen seen seen seen doom yi mais ñun liñ nuy li nuy won ñun sénégalais boo yeboo rek Afrique na kenn ku ne dellu fa nga dëkk nga toog fa comme ñun mënuñu noo may jàmm fenn. on est détesté partout mais pour lan parce que noo ñàkk fulla nit nit mooy may boppam fulla mooy may boppam dignité mais respecté woo sax say bokki sénégalais mais euh, non non non non duñ la respecté kenn joxunub cër lu nekk la ñuy daj parce que jalousie bii yàgg na nag ci Afrique parce que sénégalais yi ñoo njëkk a jàng ñoo dàqoon a jàng c'est les premiers cadres Afrique mu euh, associé kii li fi woon yépp ci di ci ay ay ay ay association wala ay ay ay ay euh, organisation yi ci ëpp ay sénégalais leen jiite woon ñëpp xaw a am jalousie ci sénégalais ndax dañoo mënoon a jàng civilisé am xam-xam bu ñuy làkki tubaab nga defee ne tubaab bu weex la lool nag Afrique dañu koy xoolee ba léegi am na ñoo xam ni suñuy bokk lanu mais bëgguñu noo gis bëgguñu noo gis respecté wuñ nu aussi te man ni ma gën a metti ci àdduna mooy jàkkaarloog doomu aadama te joxuma respect looloo ma gën a metti aw saaga sax ma ko gën parce que da nga ma war a respecter ni ma la respecter mais sénégalais amul benn sénégalais bu am benn respect à l'étranger xanaa ci tubaab yi far tubaab yi moom d'accord ne am nañu lay jox respect mais Afrique ah non no non man bi may dem Côte d'Ivoire yàlla xam na dem naa ba ci yoon bi billaahi ma ni su ma xamoon ni lii laay jànkoonteel ci yoon bi du ma fi ñëw parce que man ku ma toroxal rek laa bañ te ñun dañ toroxal guddi dañu toroxal bëccëg à l'étranger surtout en Afrique mais suñu état yi dee leen réagir bokk ñu jox nu suñu gëdd ni nu mayee nit ñi jàmm nañ nu mayee noonu jàmm ñun bundu xataalu nu kenn xatalu nu kenn mais en Afrique gii ab ab doomi réew ma nga nekk am na ci ku ñemee dox ba dab la dóor la mbéj làmb sa poos jël sa xaalis boo fayoo bu demee police bu soobee yàlla di fa am ay weer yooyu lañ ñuy def et ça fait très mal fexe leen ba ñu respecté ñu waay parce que ñun bañuñu leen defuñu leen dara suñu yàlla baaxalee melal nu nim nu melal loolu yàlla la mais vraiment li nuy daj léeg-léeg benn man des fois du ma nelaw ndax léeg-léeg benn nit yónnee ma audio nett li ma yoo xamante ni nga xam ne dañuy gurgur ay sénégalais ñu tëj di dem ba ci seen biir yi néeg di leen fëgg dóor fital gi ci bunt bi mu daj ko ñu duma la nangu sa xaalis loolu lépp nu ngi koy daj en Afrique te ñun ku fi ñëw nu may jàmm mais nag dañ noo tegut nit ay dof lañ nu jàppee parce que ginnaaw noonu fu nu dem nu dumanu te ku fi ñëw ñu raay la bu yàggee ñu ni ñuy wéruñu suñ teraanga ji nga xam ni moonu toroxal ba ñëpp yàpp nu loolu luy teraanga teraanga ki da nga koy defal ku la koy delloo mais ku la ëmbalul teraanga ëmbalul euh, respect ëmbalul aw yiw loo ciy ëmbal yooyu nit day am fulla ci boppam président Omar Bongo ndeysaan yal na yàlla wooy fa suuf ci kawam li taxoon ma bëgg ko mooy dafa am benn at yàgg na français yi jàpp ñeenti ga euh, euh, gabonais rapatrier leen bi avion bi egsee président Bongo dañi dem leen wutali ma ñeenti français ngeen dugal leen ci avion bi ñu delloo leen France keroog la France arrêté rapatrier ay ay gabonais parce que ful la mooy jaay Dakar mais ñun Sénégal dañ ñuy toroxal te ku fi ñëw ñu teral la loolu nag du nit du du nite du nite même Mali port bi d'accord am na ci luñ ciy am mais port dakaar bii Mali la gën a jariñ ci ñun xool leen ni ñuy dawale ci kaw tali bi gis digg tali bi la ñuy dawal yor camion boo xam ne day yor ñaari conteneur 40 tonnes di doon di daw 160 ci digg tali yi ngeen yaakaar ni avec ça parce que on ne nous respecte pas on ne nous respecte nulle part ñun ku ñëw ñu teral ku ñëw ñu nangam xam naa daal dëgg-dëgg yenn baax yi nag du baax ak ndof la ak ndof la c'est de la folie parce que nag. Euh, ah bu fekkoon ñoo ngi def réciproque léegi léegi lépp normal léegi nu banoo toroxal waaye nag nun noo lu nu dal noo ko teg suñu bopp ba ñëpp yàpp na c'est ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ bi noo tudd ak foo nii woowee maa ngi woote Gabon Port-Gentil mais Tourville dama koy dem d'accord bismillah pourtant man li ngay wax tey sa émission chaque jour maa ngi koy déglu mais bu tey bi moom wax dëgg fa yàlla laa laal nga vraiment ñun ñi nekk aventure man fii egg booy ubbi sa émission ngay ñaan yàlla nañu dellu ci réew mi liggéey barke rasulaay moom a gënal fii àll bi du ñu des fii ñun Sénégalais yi amatuñu benn respect amatuñu benn. dara dañ lay toroxal matin midi soir partout. mais foofu ñi fa nekk kenn du fay dara. fii carte séjour huit cent soixante et un mille ngay ngay fay par la force. huit cent. mais da ngay fekk bu ne fa nekk nekk ci jàmm ay Mali ak ñu ne ak ñu Sénégal boo jogee Sénégal ba ba ngay ñibbi chaque jour yëpp y a un chaque jour y a un enfer vrai ou pas. dañ lay toroxal dañ lay def lu ne mais ñun ñoo def ñun ñoo def dañuy dàq suñu alal di ko yàq di lekk lu ne ñu gis ko do amatuñu respect amatuñu respect sa ñaanal ñu wax ak sëriñ yi nañu ñaan yàlla nañ ñibbi ci jàmm ñëw toog Sénégal sonal nañ trop. trop trop trop wax dëgg yàlla dama leen a yërëm sax. yàlla na leen yàlla ñibbi ci jàmm wallahi sonn nañ man li may ñaan chaque jour su ma jullee ba pare yàlla naa ñibbi Sénégal toog même su ma amul lu ma lekk sax naa toog moo ma gënal. bi billahi billahi yàlla na leen yàlla ñibbi ci boo amoon sax milliard boo doon am sax milliard par jour barke Rasulullah ñun kay booyee boo rek ku nekk toog sa ñoom Modou Mbaye ñoom Mourou waaye xale yi ñoo toog liggéey ah. même fii boo amee milliard chaque jour on te met le doigt booba xale bu ndaw moo lay saaga boo waxee nga dem police fay xaalis nga génn. ci yàlla fii étranger amu fi amu amu fi kaddu mais Sénégal nag dafa lu la neex da ngay gis revue de presse di nekk seen TV Patrice Ngema day wax lu ko neex mais dara du ko ci fekk. dara mais fii fii ci dëkkam ñoom ko def de. waaw bon maa ngi lay gërëm di la sant. ngeen def jàmm jërëjëf ñii fi mu ne nii billaahi maa ngi leen yërëm yërëm boo xam ne. parce que lépp sénégalais di daj ci Afrique benn citoyen africain du ko daj toroxal bi ñu leen di toroxal dafa metti lool te fépp lañ ñuy toroxalee lu metti la bu fekkente ni kay africains yi dañ noo bëggut mais nan jëli suñ doom yi ci bitim réew nu ñibbisi ñeneen ñi fi dëkkut ñu ñibbisi ni dëkk nu may nu jàmm ñu may leen jàmm mais fu ñu dem nu toroxal ñeenu gën a jege ñoo nu gën a bañ ça aussi il foog ñu wax ko parce que respecté wuñ nu te suñ état bi moo ci war a jóg. dañuy duma sénégalais yi bitim réew wallaahi waa ji waxul li mu lépp sax waxu ko lépp waxu ko dañ lay fekk ba sa mbiir néeg duma la nangu sa alal nga nekk régal ak nga bañ a nekk régal seen yoon newu ci ab sénégalais nga daal des na la toroxal parce que loolu la ñuy teeroo fépp nag partout en Afrique on nous réserve ça toroxal nu tuutal nu manqué de respect avec ça ngeen defee ni ñun am nañ fulla ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum waaleykum salaam sëriñ bi noo tudd ak foo nii maa ngi tudd Cheikh Tidiane maa ngi woote Gabon. acca bismillah. waaye taal ngool ngool maa ngi nuyu waa DSS yëpp. Mhm, ñu ngi lay fay. dina la nuyu sant. jërëjëf. dina la ñaanal aussi. amiin. ku may déglu. jërëjëf ñu ngi lay fay. waaw kontaan si yow rek. musuma mhm. euh, woote c'est la premier fois may woote si télé. Mhm. mais musuma raté say waxtaan musuma raté say waxtaan. vraiment ñu ngi rafetlu sa waxtaan bu baax a baax. fi ngay laal tey nag vraiment li fi nga laal tey moom vraiment foofu daa jara waxtaan quoi. parce que vraiment ñun étranger ñun ñu ñun ñun nekk bon ñu nekk étranger vraiment dañoo sonn. xam dañoo sonn carrément carrément ñun nag kenn teguñu ko kudul kudul président de la république Macky mm-hmm. Sall mm-hmm. moom kese moom kese moom kese parce que tey bu ñu manqué respect sénégalais rek moo tax mm-hmm. voilà dañoo manqué respect sénégalais ici partout partout dans le monde te Afrique Asie Europe partout foo dem rek tey sénégalais amul benn balo amatul benn balo te ñëpp ñu manqué de respect xoolal même même Mali même et cetera ay dëkk yoo xamante ñu ngi nekk suñu côté tey amuñu benn respect sénégalais tey tey jarutul dara quoi xaw ma lan la xaw ma xaw ma ah, man ñun la ñun la de lan la may wax quoi ñun ñun ñun suñu bopp la de ñun la de tu vois ñun fii ñu nekk fii ñu nekk fii képp ku may déglu fii ñu nekk fii ci biir Gabon hmm. ñu ngi ñu ngi lépp ñu ngi lépp suñu carte suñuy tout tey munoo fii dox benn ki benn parti yoroo carte séjour hmm. sinon doo fanaan bon sinon doo fanaan sa galle wala doo yendu sa galle wala nga fay cinquante mille wala wala soixante quinze mille wala cent mille amaan sa carte séjour da koy def mais tout ça la doo am jàmm doo am sala wala ah xam naa ci dara ñun ay étranger ñu ngi def ci ñun lu ñu neex dara da ngay dugg ci biir dëkk bi doo yor dara da ngay dugg man am na ñu xamante ne fii la ñu jóge ñu dem foofu ñu yaakaar ne affaire bi comme nu mu mel fii noonu la mel foofu foofu kenn du la laaj benn papier même papier cent franc kenn du la ko laaj. foofu Sénégal kay kenn du laaj dara. da dund nu la neexee. Mhm. nga doxee nu la neexee nga wax lu la neex ngay fanaan fu la neex kenn du la paale kenn du la kenn du la amer. looloo fi am de. ah et puis et puis normalement dans le norme. dëkk boo xamante ne yow yaa ngi juddoo ci dëkk màgg fa say mam say maamaati maam say tout ñu ngi foofu koo xamante ne dafa jóge ci àll ba ñëw dëkk ba ñëw fa deux ou trois jours ngeen yem. Mhm. mu yor sa mu yor papier sénégalais nga yor papier senegal waay ah. est-ce que c'est normal. c'est pas normal. te nit ki boo xasee bu ngeen yemee ci carte rek yem ngeen. su sooy su yoree passeport sénégal nga yor passeport sénégalais yem ngeen. yem ngeen kay. même bu dee fu mu mënta jóge ci àll bi sénégalais dëgg la ñu ngi bëgg a pasar pasare dëkk bi quoi xaw ma lii lan la ñu ngi bëgg a pasare pasare dëkk bi quoi. oui oui. en tout cas maa ngi jégalu vraiment euh, Pape Sidi tout à l'heure seetaan nañ ko aussi Pape di tey moom vraiment faanaa ko quoi. Mhm. boo indee nit ci plateau muy wax ay conneries da nga koy arrêté. Mhm. n'est-ce pas koy arrêté. Mhm. tu yow nag ñu ngi lay sant vraiment yaa ngi yaa senegal taxawoo Sénégal yow vraiment kenn amul sa fay quoi. jërëjëf jërëjëf. ñu ngi ñu ngi sant ñëpp. di nuyu pap pap pap in Beno Kanzo quoi di nuyu pap euh, Bekay Mbaye. waaw dina la am na benn kàddu bu mu waxoon yaa ngi koy répété tout le temps. Mhm. am na ñoo xamante ne dañ leen di war a fay ñuy noppi. ñuy noppi waruñoo wax. <laughs> wax nga dëgg am na ñoo xam ne waruñoo bokkuma la nga teg nit ki si plateau bi muy wax ay conneries nga koy déglu nga nga koy bàyyi muy traîner muy traîner muy wax loo xamante ne dara baaxul. jërëjëf maa ngi jë maa ngi jégalu baax merci nuyu naa ñëpp ko jërëjëf jërëjëf yal na leen yàlla sàmm rek ba ngeen ñibbisi parce que metti na nag trop c'est trop dur démb rek ndeysaan am na ku ma woo ni ma mbirum mbirum état civil xam naa beneen yoon dinañ ko préparer. suñ ko mënee am moom ci boppam sax ñu invité ko parce que nee na ma état civil yi li tax Sénégal léegi daanaka dañuy jaay nationalité comme ay beñe mooy en général ñii ñiy defar kayit yi amu ci ko am salaire dañuy xëy toog rek ñooy bind at euh, kii euh, certificat yeeg ñooy bind yooyoog yooyu waaye am na ci ñu bari ñoo xëy amuñu salaire xam nga ñooñu dugal leen ci njub day yomb moo tax Sénégal fii nu toll ni léegi genn wàll gépp wala lu ko ëpp di ay étranger yu fi ami kayit loolu ñun ñëpp ñoo ko considéré ah ñoo ko gis Sénégal léegi par exemple ay gan yu fi dëkkul cosaanoo fi nangu ko ci suñuy loxo ça c'est clair parce que ñun amuñu fulla amuñu fulla am na réew yoo xam ne nanguwuñ sax nga indi fa sa jabar ba sa doom di fa juddoo sax far mais Sénégal Sénégal Sénégal bëgguñu ko noonu ñun danoo bëggul suñu réew cette fibre patriotique la loolooy suñu déficit moom lañu ñu manqué. parce que man Sénégal ma gënal jamaa moo ma gënal lépp lu luy lu baax Sénégal ma ko gënal man na maa joxe suma bakkan pour moom pour sama réew mais am na ñoo xam ne mën nañoo jaay Sénégal mën nañoo jaay Sénégal parce que Sénégal actuellement lii koy dal lu lu métti la te conséquences yi man ñi may yërëm mooy ñeent fii ba ñun wéy nanu mais xale yii di ñëw ils auront tellement de problème dinañu dem ba ay nit ay gan nangu seen réew ci seen i loxo parce que ñoo leen di ëpp. xeex ak ñoom sax jël réew bi mën naa nekk parce que nun dof lañu ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu. sëriñ bi noo tudd ak foo nii woowee. waaw maa ngi tudd Mamoudou. leen woowee euh, Port Gentil. ah Port Gentil bisimilah. Hmm, na ngeen fekk coono. alhamdulilah. waaw kontaan ci émission bi rek. waaw waaw. moom ñu ngi lay bëggee bu baax. jërëjëf. yàlla lafal la cat et puis. amiin gën ko yokk bu gën a yaatu. amiin amin waaw waaw di di ñaax Sénégalais yi rek à l'étranger. Mhm. pour pour nekk rek bañ dugg ci dugg ci association yi. Mhm. parce que sénégalais dañoo bëgg dund bopp sa bopp rek. Mhm. waaw ci àll yi daal surtout fii Afrique centrale moom. waaw gars yi dañoo nit ñi gën a bàyyi dund bopp sa bopp moo tax nag lu ñu dal rek dal ñu. parce que bu ñu nekkee ci dëkk bi am ci nekk fi ay milliers de personnes. te amuñu benn association bu taxaw boo xam ne même bu fi état ñëwee du mu ñu wax du mën a wax ak kenn ku nekk yaa ngi dund sa sa boor. waaw loolu nag moom suñu problème la. waaw deuxième bi aussi euh, sénégalais léegi euh, waaw sama xalaat bu respect bi wàññeekoo dëkk dëkk dëgg sénégalais sénégalais yi mujjee tukkee ko waral. Hmm? parce que ñun moom yàlla def na xaw xaw nañ fa yàgg parce que dëkk fii lañ fii la ñu ci dëkk bi. Hmm. waaye nu ko paa doon waxee avant paa yi ku nekk da nga respect respect boo xam ne nii kenn du la xool di la yàpp. Hmm. waaw gabonais du la xool di la yàpp kenn du la xool di la yàpp léegi euh, sénégalais ci boppam yow en tant que sénégalais parfois da ngay ruus. da ngay am na am na ay comportement yoo xam ne du digne de sénégalais waaw loolu boo ko affiché bitim Mm-hmm. kooku kooku tukki sax warul la. dëgg la. Mm-hmm. waaw tukki sax warul la waaye nag eh, ba léegi nag majorité moom mi ngi fi ña ñi baaxoon a ngi baax rek ba léegi waaye nag moom di ñaax rek sénégalais yi gën a dugg ci association yi. Mm-hmm. waaw bu ñu gisee luy defar ñu defar et puis jéem a changer comportement parce que tamit. Eh, nit ki doo nekk ci réew am sa nekk en règle ba pare nit ki du la yàpp da ngay da ngay da xam sa droit. waaw da ngay da ngay da ngay xam sa droit et puis bon man loolu laa mën sa noxa di di kontaan ba ci émission bi. jërëjëf. waaw jërëjëf waaw respect moom nit moo koy may boppam. waaw yow yaay yore comportement boo xay ku la gis jox la cër. waaye ñun day wax dëgg yàlla man ne ni ma ko gisee. dëgg-dëgg doomi sénégalais yi sonn nañu daal sonn nañu lool biti réew jaaxle nañu. parce que da da dem ba mu yàgg sax nga ni man est-ce que amati am naay autorité man. en tant que sénégalais li ñu lay def te ñun ñemewuñu koo def kenn fii Sénégal boo fi doon toroxalub étranger sénégalais ci boppam ñooy jox xuloog ña leen bëgg a toroxal sénégalais ci boppam ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum asalaamaaleykum allo. oui. salaamaaleykum. aleykum salaam. sëriñ bi noo tudd ak foo ni woowee. asalaamaaleykum. Sane Ngongol. maaleykum salaam noo tudd ak foo ni woowee. ngi woowee Gabon. acca bismillah. bismillah eh, maa ngi leen woowee acca wàññil sa tele bi sëñ bi. naka nga def waay. wàññil sa tele bi. Hmm. wàññil télé bi s'il pour ñu dégg la. acca bismillah. waaye eh, taal ngol-ngol. waaw. ñu ngi leen di ziar waay. ñoo ngi lay delloo ziar. waaw di rafetlu bu baax a baax seen émission bi. Mhm. waaw di leen wax rek ni eh, waaw ñun moom fii la ñu nekk Libreville mais comme li ngay wax rek. Mhm. ñun daal wax dëgg yàlla waroon nañ ñu gëstu bu baax a baax a baax a baax a baax. Mhm. te Sénégalais yi sonn nañu. Sénégalais yi sonn nañu lool lool lool lool. Sénégalais xam nga fan la ñu commencé commencé sonn bu gën génn aventure surtout ñuy jaar ci yoonu Mali. moom kay foo mën a jaar Mali lañ leen di commencé torturer. wallaahi ñuy avancé. Mhm. Côte waar ñu torturer leen. ñuy avancé dëkk bi ñu xaw am jàmm tuuti sax bene la. Mhm. Sénégalais yi dëkk bi xaw a am jàmm tuuti. muy waaw bene waaw. Mhm. mais boo génnee foofu noonu c'est fini. ba Cameroun boo ci Sénégalais dañ naan ñoom kii moom euh, euh, viande hachée bu paree déjà dañuy ubbi rek lekk. waaw Sénégalais moom dañ naan moom ñemewul coono boo ko sonalee rek xaalis gen waaw waaw. loolu nag suñu état yi ñoo si war a gën surtout amba ambassadeur yi moom laa xamul sax man lan la ñuy def Afrique ñoom ñëpp dañ leen waroon a tëj delloo leen Sénégal ñu toog parce que amuñu benn njëriñ. koo xam ne bu ñu jàppee sa doom ray ko doo intervenir buñ koy torturer mu ñëw eh, def plainte ambassade duñ ko sax suivre duñ ko sax dañ ko naan eh yow boon ci dëkku jàmbur nga nekk dangay ngay rester tranquille loolu par la or que yeneen ambassadeurs yi dañ ñëpp dañuy taxaw seen ay njaboot ne attends li fu nekk fii dafa kenn xamul lan la. Afrique centrale fii li fi nekk kenn xamul lan ambassadeur yi fii dañ leen waroon tëj delloo leen ñu ñu ñu dem toogi mais lan la ah yéen ñi ngeen yu leen fay si poosu Sénégalais yi ah ngeen di nekk seen i clim vingt quatre heures sur vingt quatre te mënoo leen amal benn njëriñ Sénégalais yi mais mieux vaut ñu delloo leen ngeen ngeen tëj ambassadeurs yi. Sénégalais yi débrouillé parce que ku ku fi am problème ñoo yaa yaa koy réglé sa bopp. fi am problème yaa koy réglé sa bopp donc nag attends lan lañ bëgg. loolu day moom jaaduwul wax dëgg yàlla ah. ambassadeur daal pour taxawu doomi réewam ah. la. non mais nag quelque part man je ne sais pas Macky Sall moom dafa mel ni dafa dem am quatre vingt quatorze ans de Abdoulaye Wade yi dafa mel ni moom la indi parce que Abdoulaye Wade sax ko tene woon bi muy nekk si si bi muy nekk Abdoulaye Wade di nekk si pouvoir. Ah. du moins Abdoulaye Wade problème Moussa na am dina yónnee avion wala yu teme noonu mais Macky Sall moom dafa ñëw nekk muuma. muuma sénégalais yi quoi. ah président de muuma mu dem taxaw fokk ko muy wax nag ak a jëf sénégalais yi ñoonu ko mais nag nañu dimbali quoi ngir yàlla nañu dimbali sonn nañu yi ñu ngi dee si àll bi boo leen ko xamee boo leen ko xamul sénégalais yi ñu ngi dee partout partout partout ñu ngi leen di torturer di leen nangu seen alal di leen dóor Guinée Équatoriale bi moo na faa lool Guinée Équatoriale bi bàyyi ba ñu nelaw ñu fëgg ubbi leen génne leen ci ëtt bi waaw foo yem ne li su ne yëpp ñu jël ko. Ah, man mii day Afrique gi fekk nañ ko sama biir kër nangu sama la dañ koy xool parce que dañ naan dañ ci aw xaalis. mais Sénégal yi sonn nañu. mais waxee man loolu rek laa amoon lu may wax asalaamaaleykum. sonn nañu ah sonn ngeen de sonn ngeen bu métti sax. te mel na ni autorités yi yëguñu ci lu bari wala mënuñu koo faj wala jéemuñu koo faj parce que nag am na dëkk yoo xam ne boo laaloon seen benn sit maa bëggoon ngeen def da léegi fii benn benn Gabon balaa trois heures di nga dégg ambassadeur bu Gabon fii ci Sénégal laal leen benn gabonais képp balaa trois heures di ngeen dégg seen réaction bu wér parce que nangu wuñ ko laal seen doomi réew ñoom mais sénégalais dañuy duma doomi réewam mu mu ci jàkk gëm wax ni ko waa ji waxee nii man ambassade yi dëgg-dëgg génn naa Afrique de waaye man gisuma woon njariñ la de ndax moom boo fa demee di di di di buñ la dumaa sax nga dem fa di ko wax ñun la noonoo réewum jàmbur nga nekk ni muña ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum sëriñ bi noo tudd ak foo nii woowee. maa maa lay ziar baax man maa ngi tudd Cheikh Ka. Cheikh. waaw. acca bisimilah sëriñ Cheikh. maa ngi lay ziar maa ngi lay woowee ah bisimilah acca. di rafetlu bu baax a baax waxtaan bi. Mhm. Eh, ak gis-gis yu wuute yi ci am waaye nag noonu la pour njëriñ jee feeñ moom. Mhm. foog gis-gis yi di xaw wuute. Mhm. waaye aussi bu ñu fàtt ne xam nga Sénégal moom ñaari dañ naan saa yu ñu waxee naan doomu Sénégal yi ñu ngi leen di torturer doomu Sénégal yi ñu ngi leen di kii mhm. mais sénégalais euh, saa yu waxee souvent may déglu nga koy wax mhm. dafa am coppite bu am suñu biir mhm. ci ay jikko yu ñu làmboo woon dañ koo jël teg fële làmboo yeneen jikko ba léegi fu ñu dem kenn mënuñu nawloo parce que am na ku ko wax léegi nee na fu ñu demoon rek ci àdduna rek Mhm. boo nekkee Sénégal rek dañ lay tiitoo. lan moo tax loolu changé. ah ñun ñoo changé. ñun ñoo changé. Mhm. alors beneen bi. Mhm. mooy sénégalais raar nga maa ngay gis sénégalais mu dem ci beneen réew. bi muy bu yegsee ci réew ma jubal directement ci ambassade ba déclaré boppam si consulat ba ne man sénégalais laa ñëw naa dama ñëw pour ut ci carte buy wane ne maa ngi ci biir réew. boo kookoo xam lu lay wax. ah du du c'est pas la peine wala jaru ko. te loolu mooy tax ñu mën la identifier mën a xam ne doomu sénégalais baa ngi nii ci réew mi heure nangam la fi dëkk bésu nangam la fi dugg bésu nangam la fi nekk man day réew mu mas a dem carte consulaire ah. lay jëkk a wuti carte consulaire waaw ma dem moom lay jëkk a wuti waaw mu ngi noonu beneen bi mooy tey nga seetlu sénégalais tey bu ñu nee sénégalais yi ñu ngi leen di torturer ci frontière yi ne wala moo tax ñu jaar ci frontière yooyu xam nga illégalement boo ko jaalee ci ci yoon boo warul jaar ci lu dul yoon Mm-hmm. mais lu la fa teg lu fa lu la fa toppi yow yaa ko teg sa bopp. Mm-hmm. Mm-hmm. boo jaaree yoon boo xamante ne dañ dañ koo jaaree ndax du yoon nga jaar fa lu la fa da lu la fa dal yaa ko teg sa bopp. amul kenn nag ku jël fii avion. wàcc wàcc jaar ci yoon am visa waytu jaar ci yoon wàcc ci réew ma wala wàcc ci réew ma na fa war a wàccee ñu jàppale ci aéroport ba di la torturé amul. amul kenn kuy taal sa oto fii normalement ay jafe-jafe dina am ci yoon parce que loolu ci nit ñi la. ci jikko yi ci comportement yi parce que administration souvent. jërëjëf suñ mbokk moomu waaw kay en tout cas daal nun sénégalais yi daal man daal ay années quatre-vingt et quelque may dem Afrique la ma fa gisoon dara neexu ci te man yi gaa yi nettali yépp dal na ma waaw toog naa sama biir kër ñaari takk der fekk ma ca biir fekk ma tëj sama buntum néeg ñu fëgg te bu ma gaaw woon ubbi ñu daj ko ndax fekk naa waa ji yëkkati taatu fital gi pour bëgg koo dóor ci bunt bi lu ma wax ana sa carte d'identité ana sa passeport ana nangam ana nangam lu mu laaj ma jox ko mu ma tu pay tu pay tu da ngay fay vingt mille francs ma ne ko pour lan mun ma parce que da ngay wër di jaay te sama biir néeg la ma fekk de dangay ngay wër di jaay te dañ koy tere comme ça ma yëkkati vingt mille jox ko mu dem yoonam waaw dem naa du am na foo xam ne benn benn waaye bu dëkk ca réew ma fekk ma may jaay mu yëkkati benn affaire ni ma ñaata ma ne ko temps mu ni d'accord defal ci mbuus ma def ci mbuus jox ko pour mu jox ma sama xaayit mu ni ma fay naa la ba pare noonu laa ko bàyyee mu dem parce que bu ma ko toppee dañ may far yendal police kaso mujj sax far yooyu lan nii def ci biir Afrique te sénégalais yi bari bariwu ci nag ñu ñu nekk Afrique di def yenn yi de am na nag ay brebis galeuses naturellement loolu fu ne la am waaye sénégalais yi réew moo dem téeméeri sénégalais ne fa juróom ñeent fukk ba ak juróom ñu nga tegu ca yoon ñu ngay liggéey ñoom kay dañ leen di toroxal guddeeg bëccëg waaye ñu ñu jub la ñuy doon ñi ci dëng nag am na parce que Sénégal da nga fiy ñëw ñu jox la wu nga doon am nationalité sénégalaise génn yóbbaale sa jikkoy réew ma nga cosaanoo bu ko defee ñu ni ab sénégalais la parce que passeport Sénégal nga yor da ngay gis ku dajeek ay ay nit ñoo xëy dégguñu sax wolof ay anglais la ñuy làkk yor passeport Sénégal parce que fii lañ leen ko jaayee xam nga am réew soo ko bëggee defar citoyen dañuy doon ay ay citoyen dañuy am fibre civique fibre patriotique dañuy bëgg seen réew mais Sénégal maa la yërëm billaahi maa la yërëm yaa mat a ñaanal bu baax a baax a baax parce que lii demoon rawoon ba mu yàgg ngay ndàcc ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bi noo tudd ak foo man maa ngi tudd Kelly Dia maa ngi wootee Angola. acca bismillah. kii ku mu jëwaat kii moom lu mu wax man d'accord mais kenn ki lu mu wax d'accord mais ambassade Sénégal yu nekk ci Afrique yii nii xaw ma Europe bi mim ah. seen maanaam ambassade Sénégal yi nekk ci euh, Afrique bii nii. Hmm. seen bopp rek lañ fi nekkal passeport diplomatique lañu am ak lu sénégalais yónnee ndax euh, citoyen ñu ñël lekk ko. Hmm. bu jàll ginnaaw benn ku lu muy kii kenn fi lu mu weex nii lu des yi foo sénégalais jaar rek dangay loo mun am rek dañ jël yëpp ñu lekk ko yow nga toog neen. ci benn sénégalais du ci wax. loolu daf si yàgg am sénégalais xam nañ ko bu baax a baax a mais xaw ma la Sénégal xaw la la ñun ñoom fu ñuy jaar rek dañuy lekk dañuy lekk bu ñu jeex takk et puis benn Sénégalais du réagir ambassade yi moom boo lee wax dara rek ñu nekk non loolu ñun suñ du suñu problème loolu yow da nga ko toppaloon nga génne ci. bu fekkee ambassade mu doon paa yaay Sénégal yi ñu nekk si biir bitim réew xam nu ñu ko waxee sax mais nag yi moom seen bopp la ñu nekkal amba passeport diplomatique la ñu wut ak lu am rek ñu jël ko. waay xaw ma. metti na wax dëgg yàlla man. am na ci benn xale ndeysaan bugguma tudd tur bi mais mu ngi gabon bi ma mujjee yónnee audio billaahi tuuti ma jooy mu ne ma papa ñaanal ma rek ma am paas même su ma amul damay ñibbisi fii doy na sëkk fii doy na sëkk ba mel ni kuy jooy mu wér la ni kii il regrette génn boobu mu génn Sénégal metti na lool ci moom bu xamoon ni lee la fay fekki du dem parce dafa am ñu mën a ah, ñoo xam ne mënuñoo accepter mënuñoo tolérer ñu di leen toroxal toroxal dafa metti as gor soo gis muy sonn bañ a torox a tax torox dafa metti yàlla nañ ci yàlla musal ñun nag torox lañ lañ ñuy réserver à travers toute l'Afrique di ñu toroxal rek di ñu dóor di nangu sunu alal boola walaa bale dangay ngay yori kayit ñu laaj la ko ba noppi ñun la il faut payer cinquante mille en Afrique boo demee ci ambassade ba mun la mënuma ci tous ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum salaamaaleykum. allo Alaj Grand Tall. waaw sëñ bi noo tudd ak foo nii may lebal tur bi rek dégg nga. lebal naa la. mais Gabon laa nekk moom. acca bismillah. xam lu mu wax. ah. naka waar. ah. ma naka liggéey bi. alhamdulilah. ah bon tànk gaa yi jooy noonu ba pare man jarul lu may jooy dégg nga lu mu lay xamal tuuti. <laughs> Ah. <laughs> man itam Gabon laa nekk sa émission club xam sa bopp bi léegi da ko def suuf am lan man de moo doon traîné la. ah. sa club xam sa bopp. sa bopp club xam sa bopp. waaw émission bi ngay def léeg-léeg après Bantamba. waaw émission démb. waaw. waaw. bul changé xalam bi de bu ko changé dégg nga. <laughs> du ma ko changé. <laughs> dong la nga ne Bécaye moom itam bu mu changé Bantamba bi xalam bi dégg incha allah. yéen a yéen yéen tuwaay yéen soppi foofu yàgg euh, grand bekkaay ak euh, kii oustaz Dame. oustaz Dame Ndiaye waaw kay. voilà dégg merci. li si nag doo jar jàll yi jooy nañu pare man baa laa sant dama jooy. waaw ginnaaw jooyal nañ mën mën ngaa noppi. d'abord rek dégg ginnaaw rangoo ñi rangoo ñi bari na lool. non jàll yi dañoo mën a jooy leen tant jooy na rek man Ba sant man dama jooy. Ah, yow kay muñal nu bañ a jooy rek <laughs> ndeysaan vraiment kenn xamul li li dégg naa nag Alaaji Malick ma sa ko wax de Sénégalais bëggul boppam te kenn bëggu ko Maodo mas na koo wax de Sénégalais daal moom ma jaaxal ñu ni ko si Malick lu la lu la jaaxale ñu ni ñoom bëgguñu seen bopp te bëgguñu leen fenn lu baaxut. nañu nañu xam suñ bopp te lii lépp li ko def mooy wallahi ah boo fàttee sa bopp lu ne dina la dal ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam sëriñ bi noo tudd ak foo nii woowee. waaw man nag Louga laa fekk waaye damay lépp tur acca bismillah. waaw waaw dañ lay ñaanal yàlla rek fan wu gudd waa wér. amin amin waaw sëñ Tall yow vraiment sa émission yëpp a man su ni sa portable la commencé. jërëjëf man jërëjëf vraiment ni ku baax nga ku wax dëgg nga ku jar ñaanal nga yàlla mi am fay ak yàlla mi am bés yàlla na la yàlla may fan. amiin yaa rabbal aalamiin amiin vraiment ni ku baax nga man parce que may tam avancer laa def. amiin fu bëree bëri enregistré def naa fa waaye vraiment li lépp dëgg la. waxuma nag biir émission kese ci yi jaay yëpp am sens. jërëjëf macha allah macha allah yàlla ñu am fay yàlla na yàlla fay. jërëjëf may la fan wu gudd ànd ak wér jërëjëf loolu laa bëggoon wax merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf Seydi Hadj Malick yàlla nu yàlla xiir ci di wax dëgg yàlla na nu yàlla xiir ci di wax dëgg parce que gis nga lii yii nii dal yëpp parce que danoo dem ba yàgg kenn waxatut te yàlla tax koy wax dangay fente nam la neexee waaw am réew nag bu fa yooya bare ay malheur di wàcc ñoom fenn moo gën a garaaw ci àdduna te bari na lool léegi ci réew mi koo waxal day kàcc daanaka yooyu amul sens nit day day day day xam dëgg wax dëgg waaw ñu bay lii nii def bàyyi nii nu mel téye sunu bopp parce que boo fonkul xam nga sénégalais ni ñuy yàqantee suñuy der ci biir dëkk bi sax déjà bokk am na sénégalais ñu jël ki ci ligne bi ma ñëw salaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam sëriñ bi noo tudd ak foo nii woowee. bon eh, euh, man dina dina dina essayer euh, camoufler tour bi mais maa ngi leen di woowee ci benn dëkk bu ñuy wax euh, Gabon. Mm-hmm. waaw dangay ngay wàññi sa télé allo. oui waaw waaw allo. da wàññi sa télévision bi. ok wàññi naa ko ok. acca bismillah yow lañuy ñuy déglu. waaw man dama dégg lu gars qui habite à waajo du dëkk Somone la lu muy wax noonu la waaw. et euh, lu mu wax noonu d'accord ci. ah. parce que wax nga léegi léegi benn waaye bu la yónnee audio dëkk Gabon. Mhm. lu mu fi daj. Mhm. alors Gab Sénégalais dafa bëgg boppam. fii mhm. nii Gabon bu ñu nekk nii. ki gën a respecté sax ci ci ci ci réew yi Sénégalais ci ci ci la bokk. waaye comme ni ni ko waa ji waxee consulat yi fu ñu fu ñu nekk fii du ñu intervenir. ci dara amuñu benn pouvoir. man musuma dal musuma dal mais des fois damay rencontrer ay ambassadeurs des ambassadeurs américains des ambassadeurs français et tout mm-hmm. hein mm-hmm. damay poser question yi ñooñu dama leen di poser problème bi mm-hmm. peut-être am na ñoo xam ne xam nañ fii bu ñu ma déggee dinañ xam kuy wax ci euh, kuy kuy intervenir mais consulat yi duñu fi di def dara en plus am ñoo xamante ne dañu nekk ci ambassade bi di lekk xaalisu Sénégalais yi pour def juste defar carte consulat da def ay business ou bien def ay démarcheurs yu kenn xamul yoo xam ne tu as droit de la de l'avoir à temps et à heure mais doo ko am de temps à l'heure mhm. ce qui n'est pas normal mhm. ku liggéey ci consulat bi dafa joge dem liggéey leneen defi leneen mhm. bàyyi nit ñi ñu liggéey ku ñëw def consulat mu rencontré ku war a def ku war a def carte consulaire mu defal ko mu defal ko mu dem liggéey jërëjëf waaw waaw kay. parce que euh, euh, euh, sénégalais dafa war a dafa am na ñoo xam ne aussi dañu gëmul seen bopp bu bu policier waxee nii ñu commencé tiit. asalaamaaleykum allo allo. ku mel ni dem na de. dafa mel ni dem na waaw sénégalais moom dëgg-dëgg daal xam naa ni daal metti na daal metti na lool metti na lool ndax euh, léegi moom wax dëgg yàlla cër ya nu amoon euh, nit ñëpp respecté nu Afrique gépp ñeewoon ba ñenn ñi sax jàllu ci ñun ah defe naa ni ña fi newoon nañu meloon nun melatu noonu ñu ci bari ci ñun de dañoo soppiku nag waaye wax dëgg yàlla sénégalais yiy génn xaw ma de génn tey jii waaye yama daan dajeel ñu baax a ca newoon ñu jàmbaare ñoo xam ni ay euh, euh, wax dëgg yàlla bëgg a tekki rek a tax ñu génn ñu jël ko ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëriñ bi noo tudd ak foo ne woowee. maa ngi lépp tur wi maa ngi wootee Gabon parce que euh, dañ maa xam fii maanaam dama bëggoon int njëw tuuti si waxtaan wi waaw maa ngi wootee Gabon. Hmm. mais dama bëggoon leeral as tuut mhm. euh, pour xamal leen na leen fii sénégalais yi sonn nañ fi mhm. lottu nañ parce que mhm. li tax ma ne lottu nañ sonn nañ gis nga bu ñu jógee jaar si yoonu aéroport bi ba wàcc aéroport yor seen visa bu ñu jëwee dañ leen di téye si biir aéroport bi ne leen woo leen seeni mbokk bu ñu jëwee fa lañ commencé fay bu ñu fayee ñu njëw war a jël bato bi pour njëw ñu war a njibbi si port gentil war a yéeg si bato bi bu ñu njëwee ba war a yéeg jënd seen biir dañ leen di wax na leen seen visa normalu da ngeen di fayaat foofu dañuy fayaat bu ñu jëwaatee ba port gentil dañuy fayaat te li may wax ñëpp xam nañ lu leer la te boo xoolee tey quatre séjours li ko sénégalais di fayee fii presque mat na un million mhm. te boo quatre séjours bi bu amee ñaari at dafay pér dafay jeex nga war ko renouveler waat dangay ngay lu toll ci fanweeri junni tey boo waree boo amee say këyit war a jóge fii pour dem Sénégal da ngay fayaat li ñuy wax visa de sortie fukki junneeg ñeent. Mm-hmm. ba pare ñaareel bi mooy ñi nga xam ne sax dañu nekk ci démarche su ut këyit saa bu mm-hmm. ñu génnee muy euh, taxawoon nañ leen nangu seen xaalis. laaj leen alal bu ñu yorulee xaalis ñu yóbbu leen prison euh, police en attendant tëye leen fa seeni mbokk njëw fay xam nga ne loolu coono la. coono bu metti kay. chaque jour dañuy dem di intervenir ci cas yu mel noonu. chaque jour ci la ñuy ci la ñuy dem ñenn ñi dañuy mujj sax yenn policiers yeeg yenn saay-saay ci nekk ci dëkk bi dañuy njëw ci boutique yi di fëgg waa boutique yi ubbi laaj leen xaalis. Mhm. di leen escroquer vingt quatre sur vingt quatre. dëgg la. Mhm. te yooyu yëpp kenn mënu koo wax. waay fii li fi gars yi di daj metti na. metti na metti na waxuma ñiy jaar ñiy ñëw ga ñiy ñëw fii si dëkk bi di jaar si yoonu suuf waxuma ko mais ñiy jaar si yoon bu baax bi. Hmm. ñu ne dañoo yor visa noo jële visa Sénégal ñëw ba Gabon ñu ne la visa bi normalul il faut que nga fay. nga fay visa nekk si démarche yi nekk fi di fi liggéey di taxale as tuut ba am njëgu xoolal un million boo nga nar ko dépensé si quatre six jours xam nga ne loolu metti na. kañ ngay dimbali say waajur kañ ngay defaral sa bopp. wallaahi wallaahi mais c'est impossible. Eh, ah buñ ko doon fayu fii sax. léegi bu amee man li ma si gën a metti mooy. ba pare ñun africains yi dafa mel ne dañoo bëggantewul suñu bopp. waaw parce que li tax ma ne ñun africains yi bëggantewuñ suñu bopp gis nga tubaab bi nekk fii français bi visa buy buy buy jot buy ut quatre séjours du ko jariñ dara la may fay du dara quatre séjours am moom juróomi at la cinq ans bu africain bi deux ans la. cee yàlla sa moroomu Afrique. Euh, tubaab bi buy génn di dem dëkkam vacances. du hmm. fay visa de sortie yow Sénégal bi booy génn fii malgré que yaa ngi carte résidence. Hmm. malgré que yi chaque deux ans nga renouvelé fay cent cinquante mille mooy mooy booy génnaat yaa ngi fayaat soixante dix mille. africain. c'est malheureux. xam nga ne loolu metti na. na trop. kon képp ku ne képp ku ne fii. sénégalais yi fi nekk ñu ngi si jàmm ak salaam ñu ngi si nii non loolu wax ju daanu la rek wax ju daanu man nit wax ak yow chaque jour ma dem intervenir fay ay ñeenti junni fay ay juróomi junni neexal nit pour ñu bàyyi nit te li leen di jàppee boo xoolee ba xool def waa ji deful dara. dara la deful. deful dara. mu xanaa étranger bi mu doon parce que tous les jours damay intervenir. étranger gi mu doon de xanaa mu loolu la def. loolu kese <laughs> parce que tubaab bi muy wax. maanaam euh, nu mu. am na accent xam nañ ne kii du waa dëkk bi waa fële la ñu ne ah acca nañ ko nañ ko nañ nañ ko nax ci yàlla c'est vraiment malheureux metti na dégg nga loolu alaaji malik africain nga may nga defal euh, euh, carte de séjour u deux ans tubaab bi nga defal ko bu cinq ans bu africain bi dellu seen dëkk fay soixante-dix mille bu tubaab bi dellu seen dëkk du fay dara africain noonu ngay jàppe sa moroomu africain loolu mooy solidarité africain bu fekkee noonu lay demee kay na ku ne toogub dëkkam parce que comme ñun bëggante wunu na ku ne dellu fa nga dëkk nga toog fa parce que man loolu laa gis de ginnaaw foo dem bëgguñu la toogal sam dëkk ah toogal sa dëkk africain moom bëggul moroom ji moo tax daal dëgg-dëgg pour defar ko dina jafe de surtout Sénégal gii ma gis nii ndax Sénégal moom ay ay ay doomam da cee bari ñoo xam ne ñoom dañoo seetaan Sénégal dañoo seetaan seen réew jàppale wuñ seen réew <clears throat> waa jii doon wax xam naa ne kuy ku sonn ca Gabon la ndax xam naa ne xam nañ ko fa waaw te problème bu am ñu yëgal ko ko waaw mën naa xëy di daw ci gaay yi ba ngoon ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam sëriñ bi noo tudd foo ne woowee allo. man ma ak foo nuy woowee. Eh, maa lay woowee Dakar kii acca bismillah. Eh, ñu ngi lay ziar bu baax naka njaboot bi. alhamdulilah. macha allah am na solo lool lool lool lool. Eh, ñun ñii wax ay jeunes lañ Sénégalais lañ. léegi mhm. fii Dakar. Mhm. bon def un partout un peu ci dëkk Afrique yu bari. Mhm. parce que dama rek. Sénégal dafa am lu ko yàlla defal loo xamante ne xëy na loolu dogal suñu borom la mhm. mais nag loolu foofu Sénégal ci xam ko d' xam li la yàlla defal mooy lan d' abord yow yaay kan d' abord mhm. pour nga mën faire face à mhm. loolu ci naturel Sénégal la wax loolu yàllaa ko def xaw ma yaa ngi comprendre mais boo amee noo mel ak li nga xamante ne moom yàlla defal ci li naturel muy le sénégalais mu doon ah man je parle pas pour jeter fleur ou quoi que ce soit dama lay wax rek li nga xamante ni loolu laa gis loolu laa suñu par rapport ak United africain intelligence bi nga am ak poids bi ngay amee c'est-à-dire gëm bi nekk yow d'abord le poids mhm. nga gëm ni yaa un Dieu yaa ça yaa ça Sénégal loolu boo xoolee en Afrique Sénégal la ëpp quoi wax ma amul feneen de Sénégal la ëpp par exemple les tarixa murid layen xaadir tout ce que tu veux même christianisme bu loo xam ne da nga koy gëm daal dina koy daree ñettaat la mhm. mais am na dëkk yoo xamante ne yooyu valable na foofu ñu ne gëmuñu dèjà am xam ne sax ay yooyu ay yàlla ay suba non non non c'est pas le problème mhm. donc ça fait une différence mhm. donc loolu yow bu la ko yàlla defalee ngay représenté da nga ngay xaar par la force mooy suñu maam yu baax yi ñu daj c'est-à-dire que taw sëriñ sëñ daj ko c'est obligatoire loolu la yàlla dogal loolu nag boo ko xamee nga xam ne nekk yow yow il faut que nga nekk sa biir dëkk d'abord mm-hmm. maanaam li ngay jàng da xam nooy yow xam sa buntu waroon ko dajji laaj lay mm-hmm. après ñu la xaalis ko joxe di daal tëdd nelaw mm-hmm. bien vrai que gërul la mais ci la fin est-ce que boo woon kooku est-ce leneen mun la ñu fekk. Hmm, dëgg dëgg. waaye mu tax yàlla nañ ci hmm. waxuma pour hmm. euh, ñu nangu lu ñuy teg wala yooyu non non damay wax pour que ñu doxal ak suñu xel te xam ne réew jaamur la quoi ànd boo bàyyee sa ànd ànd boo dem da fekk borom. dëgg la jërëjëf jërëjëf sëñ bi xam naa fii la nii nag waaye <laughs> El Hadj Malick ginnaaw sénégalais yi moom. da nga ciy dégg koo xam ne sax discours bi muy def ci biir euh, ci kaw derub Sénégal ku ko dégg sax doo dootoon nu respecté noonu euh, sunu président baaxut loolu la noonu sénégalais yi loolu la ñuy wax sunu gouvernement baaxut bu buñ fiy defar lu baax sax nga gis ñëpp jóg ni li ñuy def baaxut terre bi du priorité nangam du priorité nangam sénégalais dafa mel danoo bëggatul suñu bopp ñun ci suñu bopp noo njëkk a yàq derub sunu réew li ñuy waxante ci biir réew mi kay te léegi internet bi ñëpp ay yëg lépp mais xam ngeen li kàddu yu bon yi sénégalais yi waxante ci seen biir nit ñi mënatuñ ñoo respecté te quelque porte ñu ndaw a koy def ah. moo tax kenn tegatulu nit nooy saagakat yi nooy waxkatu lu bon yi nooy tourné sax léegi film porno yi nun daal Afrique mbon gi nga xam ni mosuñu koo dégg ci réew mi lépp am na fi léegi dem yal na yàlla defaral nu Sénégal Aliou yaa wax dëgg na ni ñaanal réew mi Sénégal yal na la yàlla sam yal na la yàlla sàmm xam naa nag nu yem fii rek incha Eh, di nuyu bu baax sama xarit ceex na Correa ci Abidjan ak may sa Guèye dem Couture gëj naa ko dégg nag eh, di nuyu sëñ Bamba Ndiaye ca Gabon di nuyu sëñ Djili Fall ca Daara di nuyu képp ku bokk ci mouvement sénégalais d'action civique xam naa mbas mee tax rek waaye kon nëga ni jóg nañu yëngu ji noonu nag du ñuy politicien tarixa wunu xeetu nu ah la waaso wunu nun li nu gëm mooy lépp luy defar réew mi dinañ indi ay solution pas ay problème ñun ay solution lan yor incha allahu pour teg yu réew mi ci aw yoon lii lépp dina bokk ci sunuy programme incha allahu rabbi kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fi amaanillah jërë ngeen jëf asalaamaaleykum mbokk yi Sénégal ca kanam Sénégal ca kanam ngir ñuy xalaat.